am na ku ma wax ne ma euh, sëñ Ablaye dañu doon waxtaan démb ak moom ci Masaalikul Jinaan mu ne ma dañu war a waxtaan ci tasawuf ak ni niñ ko bëggee dajji am kilifa gu ne ma déedéet sëñ na wax ci masaalik waaye sëñ arab bi nañu décortiquer muxaddimaat xam nga dafa am baat yoo xam ne ni kasafta du jaaxal bi wa kulli xamaytahu bi hifti lati mahmastaka mustakin aska xam nga loolu même buñ la ko firilul sax soo ko déggee di nga xam ne lu garaaw a ngi noonu <laughs> waaw maam di neex gi day day day neex tey dama bëgg ndax dañuy faral di wax damay dégg si sëñ Ablaay ñoom ñii ñu di ko waxtaane ma ne leen li mu waxal boppam moo gën a yéeme liñ koy waxal te loolu yow da nga am xol bu sell bu leer ci ne li ñuy wax sax li sëriñ bi wax frilé guñ ko askan wi ma bàyyi la nga nuyoo ginnaaw bu ñu la joxee wàcc waay woowu nga nuyoo téléspectateur ba noppi ñu door a dugg nag ci waxtaan wi alhamdu maan lillahi ala nabiyi waladi abdillahi waftax lana kulla baabin kunta fatixahu للصالحين من الخيرات يا الله واقض حوائج الذين داموا في خدمتي وهب لهم ما راموا est-ce que Cheikhul Khadim maa ngi nuyoo di jiital ci nuyoo bi ki sagal diine ji sagal lislaam bi fekkoon ko jàngkatu tubaab yi jàpp ne sëriñ mooy ku yalwaan moo tax sax léeg-léeg nga dégg sama gàmmu ko gouvernement ba joxuñ xaw ma ndimbal joxuñ ma nangam alkaati joxuñ ma lii mel ni ñun yalwaan rek lañu fi nekkee waaye doomi Serigne Bachiru ji di mun Muntaka moo génn par cinquante millions par deux cent millions par nangam ak nangam mu jógee ci këru diine mu boowu ko mu ne ñëpp laa ko defal kon am leen maanaam wa taxsabunahu hayyin wa huwa inda jëf jooju mu jëf jëf la joo xamee ne lislaam la ekkatiwaat nga dema l'islam mësta daanu ma ne ko an kay ñi koy daane mooy ñi ci bokk tariqa murid ñi gën a dangereux naan murid laa waaye ñoo gën a garaaw ku ne gën a garaaw ku ne maa ngi koy nuyu bu baax Mbàkke di nuyu ay rakkam Serigne Ishaq Mbàkke di nuyu it le porte-parole Serigne Bachiru Abdul Qadir nga xam ne fuñ tase ci dëj dëj laa wax de mu tase arabi xaaral bala maa ñëw mu jox ma loo xamee ne bu ma ko waxee ñëpp dañ may catu waaw di nuyu it ay magam Serigne Cheikh di xalifa ba nga xam ne adiba rek may ooyee fu ñu tase Serigne Moustapha bëri bëri jàmm bëri bëri bëri may ak Serigne Fallou ak Serigne Khadim waaye din du mën fàtte it ki nga xam ne sëñ Touba bu doon lem ma ne moo ko masal mooy Serigne Maam Mor Mbacke mu sëñ Mourtada ndeysaan di nuyu ñëpp di nuyu itam Serigne Abdou Samad. Serigne bu moom Serigne Chouaïbou. ndeysaan nga xam ne daf ma invité. Mm-hmm. ma ne ba may dem kër Serigne Chouaïbou sama ñi ma àndal dama leen a wax ne kii bi vitesse vitesse boobu nu mu tudd xalifa. automatique carbotage. carbotage bi laay dugal. Mm-hmm. ndax kër Serigne Chouaïbou kër xam-xam la. ndeysaan waaw léegi léegi benn waay ne ma léegi léegi da mën a jàng. léegi léeg doo mën a jàng ma ne ña may fekki ñooy mën a jàng ma jàng <laughs> ma ma dem ci ñu mënta jàng bëgg léeb lu peen ma it ma respecté con contexte yem ci léeb ak lu peen waaye ma gis ma ma dem ci li ma doon wax ci Cheikh Bamba ci xasida yi ak ni ma koy décortiquer ak ni ma ko waxee ci jamono jooja waru koo na mën a wax mhm. parce que waruloon a am inspiration mais ma ne ki nga xamee ne ma nga ca hôtel ya gën rafet mhm. dend géej gi mu am six heures demi ci montoram mu gis jant bi di tàppe ci géej gi mhm. euh, kontam duun lool bokkul ak sama compte muy bind ci français walla ci arabe xasiid ak wala kooka na muy rafetee mhm. Cheikh Ahmad Bamba ci jamono yoo xamee ne mi ngi ci yu doy waar moo ko gën a rafet style mhm. foofu rek lañ koy comparé ci li ñuy wax littérature comparée mhm. foofu rek lañ koy gisee ci ni mu wax ah dina yooyu nag soxna Baali Mbàkke mun taqaa nga xam ne saa ma demaan euh, porokaan moom la ma sëñ bi boole waaye daf may ganalee ganalee ba ba pare ekkati xaalis jox ma damay xaw a sax ruus di gêné wu di nuyu njabootu Touba gi yëpp di nuyu itam soppeey sëñ Touba sëñ Touba soppe la am amul doom qulubu man lam yuhibbuni ala wajali ndeysaan lu tax mu ne wala yulaquuna ma raamoo wala albaab mu ne xol yi ma sopput foo fekk ñi ngi ci wajal wajal ci ci philologie wu arabe mooy problème permanent permanent boo xamee ne sagren sa daaw sa sa sagren muy gën a métti sa daaw sa déwén di la fi xaar chaque jour la yi ma sopput mais pourquoi waxut xol yi ma sopp ñu ngi ci gundaandaat parce que bu ko waxee ci contexte bi dafay mel nii dafay dafay woo nit ñi di propagande moo tax mu bugg soowee ñi ko sopput nekk attention ñëw leen qulubu man lam yuhibbuni ala wajal wajal boobu nag moom la firi ci satru qasida ñaareel bi mhm. lu tax mu ne wala yulaquuna buñ demee Amérique buñ demee fuñ mën a dem pour uti teraanga du ko fa am ñooy jël ndaare ñooy jël ndaare mhm. walaa yu laa ko ne maaraamu maanaam maaraamu seen càkkutéef duñ ko am mhm. bunt buñ fëgg ñu tëj mhm. bunt ba tëj pourquoi parce que soppuñ Cheikhul Khadim benn waay ci ñu <laughs> yàlla dimbalewut ne ma waay ñu sopput yàlla soppuñ yonent bi dara jotu leen moom mu naan xol yi ma sopput mhm. ma ne ko bokkuñ sëriñ bi dafa bëgg a dallu ay minute jël mhm. ak xale teg ko fi mhm. ne ko dimbali ma ku ñëw nga ne ko na ma xar tuuti nga ñëw mbéj xale booba dóor ko sëriñ ba réaction ya muy def du bokk ak moom nga tooñ ko ci boppam dëgg la moom incontestable ne mooy soppe rasulullah alayhi salaatu wasalaam di nuyu itam bala maa xaabaabal mhm. sama mag Serigne Mouhamadou Mahi Ibrahim Niass mhm. di sama mag mhm. di xalifa bàyyi Niass heure bii démb maa nga fa di ko tàggu ñuy waxtaan ci xam-xam ma koy wax ak xutbaam yi ne ko ku toog xalifa Baye Niass yow day mën nga faa toog ndax Baye Niass xam-xam rek la woon man mhm. Baye Niass moom ma gën a njëkk a boole mhm. ak Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ndeysaan cinq ci Maroc ndeysaan ñoom ñaar ñuy xarit lool mhm. ñu ànd ambassadeur bi mu wax leen imposé leen pour ñu dem teeru ji Senghor Senghor dafay euh, franco francophone nee na moom la doon politiquel ñu àgg mu ne Eh, man eh, eh, cinq heures du matin lay jóg mhm. ca xat rek laay naan xaat ne sëñ Cheikh Mbacke Cheikh Mbacke yow dégg naa da nga fa mhm. faji ak Baye Niass man bu ma xamoon lan nga ma bañee man nag star la mhm. danaa ko jéem a fexe ba jubóog yow tubaarkàlla sëñ Cheikh ne ko mënuma bëgg ku bëggut yonent sallallahu alayhi wa sallam Sim Touré ambassadeur bi ne ma jox na ma benn enveloppe pour sëñ Cheikh Mbacke mu te man waxaguma ko ko mu ñëw ne ma luñ la jox bu ko jël delloo leen ko te boo ko jëlee danaa ko xam laa ilaha illallah waaw maanaam bu ñuy dugg ci oto yi dem bàyyi ños ne ma demal nga wéttali Serigne Cheikh ak seriñ Saliou ak Xaadim muy doonoon caatam mhm. waaw bi ma ñëwee nag li ma ci gën a gën ñu mhm. affecté ma ndar mhm. comme professeur mhm. arabe may jàngale arabe ci lycée Faidherbe maa ngi sant yàlla am na général yoo xam ne actuellement ñu ngi ci nguuru président Macky Sall yoo xamee ne man maa leen jàngal loolu loolu sama titre la ndeysaan ndar googa nag laa falaa defee trente sept ans maanaam ñaari rakka yi ba muy ñëw man lañ ci njëkk a sant conférence à démocratie chez le Cheikh Amadou Bamba yomb na parce que moom dafa ñëw rek kenn ku nekk xëcc say taalibe bul dem fii bul dem fële bul dem fële yeewal mu dëgër moom mu ñëw ne wa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawaun intama ila aljaylani aw intama li ahmad altijani aw li siwahuma min al aqtaabi id kulluhum qataan ala alsawaabi ndeysaan est-ce que Cheikhul Khadim ndeysaan te Masaalikul Jinaan dama boo xoolee style bi sawa un intama maanaam baat yi dañoo dañoo beesee waaw xam nga ñaari façon wu arabe moo am Sénégal am na ñoo xam ne dañ naan mani mani Ndakaaru bëgg a dem am ñu naan ndakaaru man bëgg a dem am ñu naan ndakaaru laa bëgg a dem tey naar wala ngay tubaab ñu ñu jàng xam nañ ko mais moom arabam dafa yéeme lool surtout ci jamono joo xamee ne man jàpp naa ne kenn jàngalu ko waaw la alimu mooy wax de man kay référence bi moom mooy wax mhm. la alimu kan taalimal ulum alimu jooju nag ci tur yàlla mu mu mu xaree ko ko yàlla mu moo ko xam moo ko ko moo ko ko moo ko jox sëñ Xaadim maa ngi lay nuyu ndax mas naa toog ak sëriñ Siri Muxtaar ndeysaan mu ne ko xam nga kiyam sama soppe la muy man ndeysaan <laughs> wallaay ndeysaan wallaay waaw ñu génn ndeysaan maa ak sëriñ Baara Laxat mm. maa ngi koy nuyu au nit ñi di ma dab di ma jox xaalis di ma raay naan nii mu ne ma ah lii day doy na waar mu ne man ah man de sërëf sëñ bi waa direct la te yëf yaa ngi koy làng ma ne ko ah man de damaa niin bott ci yëf yi rek <laughs> tubaarkàlla tubaarkàlla docteur euh, jërëjëf imam euh, docteur al imam tey sëñ Ablaye baat bu ñu neex mën nañ ko véhiculer xam nga xam nga xam nga sans bàyyi gën seen baay baat bu metti la mais sans bàyyi ma gënal seen bàyyi ku la ci mere moom moo la tooñ sama baay gën seen baay boo ko waxee ci penc mi rek indi nga problème mais boo nee sama baay ma gënal loolu doo indil kenn problème lii mu def nag xol bu sell xam nga li mu wax ne xulubu man lam yuhibbuni sëñ Tuubaa fee mu ne wa bisru man ahabbani laa yéen xarin daf ne ala wajalin wajal googu mooy éternellement kooku ci mettit ak coono rek lay di lay dund waaye kii tamit éternellement ci mbégte rek lay dund loolu yaakaar naa ni dana ko indi leeral ko lu ba lu am solo sëñ Xaadim Kebe euh, sëñ Ilimaan da may fàttali sama xasida gi damaa bëgg bu nuyoo day ñëw toog noonu su nuyoo rek day ñëw toog noonu xasida gi nu mu tudd rabbu samaay yi rabbu samaa yi daal faaw mu rabbu samaa yi ko tey euh, tubaarkàlla bu nuyoo rek day ñëw toog noonu su ko defee mi ngi jàkkaarloog sëñ Fallou Tine mu nuyoo sëñ Xabaan nuyoo